deux heures du matin poste police bu Mbacké woo nañ leen téléphone maam le délégué de bi moo leen woo xamal leen ne am na ay sambabo yi nga xam ni dugg nañ ci koñ ba foofu am fa ñi nga xam ni jot nañ leen agressé loolu poste patrouille nga xam ne ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci biir dëkk bi di wër dem def fa daar daar dem fa bañ fa demee nag malheureusement fekkuñ leen fa ñu gis fa soxna si nga xam ni walla boroom kër gi nga xam ni sambabo yi jot nañ ko gaañ si jamono bi ñu ko jëlee indi ko fii si poste bi di ko déglu am keneen ki nga xam ni oote waat na si Daaru Salaam extension xamal leen ni am na ñu nga xam ne attaqué waat nañ foofu beneen kër si noonu commissaire bi ak ay élément am génn dem pour xool ñooñu bañ demee ñu def benn reconnaissance dàqante ñoom di xool fan la ñooñu dugg jotuñ leen gis ñu na waat ñëwaat fi ñu jógee xool seen traces yi ba mujj gi ñu topp leen topp leen bañ dem ba si dëkk bu ñaan boobaleel foofu lañ dem làqatu woon bañ fa demee yàlla dimbali ñu bañ fekk fa ñett si yi nga xam ni bokkoon nañ si ñi nga xam ni yaakaar nañ ni ñoo def ñaawteef yooyu noonu si seen biir defin yooyu noonu nag ñi nga xam ni jot nañ leen songu am na ñi nga xam ni gaañ nañ leen si damm nañ si seen loxo jël nañ si seen alal lu demee nii xaalis wala ay ay ay téléphone ak ay tel ay téléviseur si biir loolu tamit am na benn ndaw soo xam ni bu am ay fanweeri at buñ ci jotoon a enlever yóbbu ko ba si àll bi ñu bàyyi ko foofu mais alhamdulilah mujj nañ ko gisaat fekk ko si àll bi comme ni ko commissaire waxee rek ba ñu demee def perquisition seen fi ñu leen fekk foofu noonu fekk nañ fa ay matériels yi nga xam ni dinañu ya jox ñu yaakaar ni ñoom ñoo def ñaawteef yi nga xam ni moom lañ lañu toppee mi association de malfaiteurs ñu mel ni lu mel ni ay coupe ay jaas lu mel ni ay kuul yoo xam ne mën nañ see dóor nit di si gaañe nit ak lu mel ni ay euh, fetalu artisanat fetalu dëkk ak benn ñaari moto jakarta yoo xam ni fekk nañ ko foofu noonu bañ leen indee nag déglu nañ leen xool nañ leen saytu nañ leen am na li nga xam ni moom lañ la ñu toppee muy association de malfaiteurs ñeneen ñi nga xam ne ñoo des si bande bi